bon campagne bi ça se passe très très bien Nous avons organisé au organiser woo Sénégal on a beaucoup misé sur la diversité de la coalition bi leader yu bëri yi nga été ne Moi, euh, pré campagne bi déjà nous avons dafa zone en trois zones zone sud zone nord zone ouest. Sibir campagne bi également mu am ben caravane nationale bi nga xamantene ne tête de liste bi moo si nekk Sall mu am benen caravane bi nga xamantene ne coordinateur bi docteur Abdourahmane Diouf mo si nek mu am aussi ñu pàcc pàccal ay ay équipe yoo xam ne dañuy dugg si biir si biir kii si biir koñ yi moo tax parfois chaque jour man par exemple ku mel ni man su ma yeewoo euh, damay xool ci si yan ban programme laay dem parfois damay rejoindre la grande euh, euh, caravane bu xam ne day def le tour du Sénégal parfois ma nekk si groupe yoo nga xamante ne ñu ngi si biir koñ yi comme tey ni ngeen ko gisee porte à porte la ñuy def fii si HLM Grand Médine muy Parcelles Assainies donc dama ñëw fekk ben équipe bu nekk fii am yeneen équipe yu nekk feneen donc non la ñu defee liggéey bi donc ça se passe. waaw lu gën positif mooy d'abord abord euh, en ce qui nous concerne mooy d' abord sénégalais yi xam nañ ne que ne coalition yi fi nekk yëpp Aar Sénégal moo fi def contrat de législature. Euh, fan la ñu fekk assemblée nationale fan la ñu koy yóbbu loolu sénégalais yi soxlaa xam parce que assemblée yu fi jaar yëpp législature yu fi jaar yëpp rawatina ñaari législature yu Benno Bokk Yaakaar yi gis nañ ne en réalité. Euh, amul liguey bu bu ñu liggéey wala bok représenté wuñ population comme ni ñu leen war représenté moo euh, avant même ñu dem ci élection yi dañ né dañuy défal contrat de législature donc tay 10 jours après gis nañu Sénégalais de plus en plus ñu ngi imprégné wu suñu programme de plus en plus gëm nañ né équipe bi nga xamante ar Sénégal euh na nako en place équipe la bo xamné né euh, Inshallah, dina mëna représenter convenablement les populations sénégalaises. wa lu wara tax ñu wara choisir ar Sénégal ci ñaari mbir la. Ben bu ñëk bi moy fan lañu jëm fan la fan lañu wara yobbu assemblée nationale mom la la wax légui moy fi lañ ko fekk fi lañ koy yobbu nan lañ ko fay yóbbee loolu mo indi ñu def lu wax contrat de législature mais nag contrat de législature tay mën nañu wax aussi mën nañu rétorquer nañu ku ne mën na ko def donc li gëna am solo aujourd'hui moy ñu ne def nañ contrat de législature mais est-ce que am nañu ñu ko appliquer au sein de l'Assemblée nationale si loolu tamit Ar Sénégal mu proposer équipe boo xam ne seen compétence seen euh, expérience ak seen rigueur kenn mënu ko naatable et sooy xool aussi expérience bi surtout ñu ngi ko par rapport ak trois euh, disons pouvoir yi nga xam au Sénégal soo xoolee le pouvoir exécutif Thierno Alassane Sall ministre la woon ministre boo xam ne bu am solo la yor mirum pétrole bi ñu bëgg ko signé loo loo xam ne ne signé mu dem yoonam bàyyi fa docteur Abdourahmane Diouf directeur SONES la won yor loo xam ne mu gën am solo muy ndox mi ba mu demee ba gis def diagnostic ci ndox mi ñu neexu len ñu jëlee ko fa donc ñooñu suñu la né am nañ expérience ci l' exécutif ñëpp xam nañ na am nañ ko soy xol ci ci si côté législatif bi man mi di wax ak yow ak Cheikh Omar Sy ñoo nekkon 12e législature je pense que sénégalais yi xam nañ ne am na liggéey buñ fa def 13e législature bi député yi ñu bokku na ci député yi ñu gën ragné muy Marème Sohra Ndiaye la Benjamin de l'Assemblée nationale ak Théodore Chérif Monté nga xamante ne bu am solo la fa def ñom ñaar ñu ngi ci coalition bi donc expérience législative am nañ ko. li jëm maintenant ci euh, ci côté judiciaire bi ku melni juge dem nga xamante ne na conseil supérieur de la magistrature démissionné fa nekkoon magistrat démissionné parce que bëggul woon complice ci justice nu muy doxee kooku tamit mu ci coalition bi donc am programme bi am équipe bi je pense que nous des rek moy ñu assemblée nationale représenter dignement les populations. waaw financement activité art Sénégal mom ni ñu ko ñu ko défé moy d'abord dañu xamné né art Sénégal d'abord parti yu nga xamante ñom ñoko ñoo composé ay parti la yo xamante né ñom ñep ñëpp jëlone décision dem élection. bañ jëlé décision dem élection dañoo travailler ci ñaari mbil muy les conditions sine qua non benn bi moy parrainage ñep xamnañ né parrainage conditions yi la bok. Benen bi moy caution bi.

dem ci population yi waxtaan ak ñoom comme ni ngeen ko gisee ñu ngi def porte à porte di dugg si kër di génn si kër loolu moo moo bokk na si ay stratégie yoo xam ne jàpp nañ ne mën na tax sénégalais yi votel ñu en même temps ñu def suñuy caravane donc vraiment ñu ngi jéem a travailler par rapport à nos propres moyens waaw loolu lu waxu propagande la rek waxu xale sax laa koy tuddee parce que euh, mënoo dut baaraam si loolu euh, parce que nag opposition de de de de l'opposition

moy sénégalais ñu départager so sénégalais ñu voter té vote bobu nak le 31 euh, bi di ñëw lañ koy xam donc je pense que li am solo rek moy mën nañu am différence ci point de vue mais lolu aussi politique daf koy nangu démocratie daf koy nangu motax pour man lolu waxu propagande la peut-être pour takal ñu waye li am solo moy xam nañ ñun ñëpp suñu parcours té xam nañ né on a toujours été constant dans notre parcours politique mais justement xam nga lu dem lu melni Benno Bokk Yaakaar par exemple tay Benno Bokk Yaakaar mënul def bilan deux législatures nga lajj deux législatures euh, nous wax député députés vraiment représenté le peuple parce que si nous wax le vote des lois nous savons que les lois, yu si voté c'est des projets de loi Les projets de loi nous devons ko des amendements, def ay amendement def lu si war defuñu ko évaluation des politiques publiques defuñu dara nous fenn fu la mëna waxé évaluer les politiques publiques soy xol lu mel lu melni contrôle de l'action gouvernementale gis ngeen question écrite question orale question d'actualité au gouvernement commission d'enquête parlementaire, il y' a beaucoup de questions yo xamné question inondation yi dañu xaar commission d'enquête parlementaire mais defuñu ko donc euh, lu dul def mission d'information, té mission d'information, destiné aux députés mais dañ jël kayit bi djébal ko président de la République ba Sénégalais ont xamuñu am mission d'information bi ça veut dire que il président lañ fi teewal mais téwuluñ fi Sénégalais donc ñu amul bilan nous wax ci bilan Nous avons wax réalisation du réalisation président Macky Sall et ça ça n'a rien à voir avec l'Assemblée nationale. motax discours effectivement discours bu discours bokku la discours parce que l'Assemblée nationale c'est un pouvoir particulier bu exécutif. lan nga jëm lan ngay yóbbu assemblée nationale fan nga ko fekk fan nga koy yóbbu loolu la ñuy xaar moo tax ñun ñu ngi ci discours boobu ñu ngi ci contrat de législature ñu ngi fexe ba sénégalais yi xam ne am nañu expérience pour mën a euh, représenter leen. no non loolu moom je pense que dafa mel ni sax dañu euh, dafa dafa am daal benn politique boo xam ne waxu reporter élection depuis boobu ba léegi dafa am ñoo xam ne suñu lajjee ci ci mbirum euh, dëkk bi dafay tàkk. Tay ñu ngi wax inondation peut-être qu'ils ils vont nous dire autre chose non nous avons nga le problème élection yi du problème acteur politique yi problème mu élection problème population la population yi ngay un rendez-vous pour nous xam ndax dañuy fol li ñu fi wala leen di donc c'est un rendez-vous pour le peuple donc je pense que dañ ko respecter mais li nga wax ci inondation yi bëggon na ci yox aussi que scandale gënu euh, plan quinquennal bu ñu 2012 2022 la ñu ngi ci 2022 dañu waxoon 2022 inondation dootul amati Sénégal mais 2022 fa lañu que actuellement jël nañu wax 766 milliards la ñu prévoir pour loolu sans compter les plans sec yi nga xamantene ne ñu ngi koy def boobu léegi plan sec bu ne ay milliards la donc il faut ñu def un bilan de ça parce que pour man mooy scandale bu gën a rëy régime Macky Sall je pense que war nañu yërëm askan bi parce que mënuñu nag bàyyi ndox mi muy yóbbu seen alal di yóbbu seen i kër di yóbbu seen bagage en même temps ndox mi di yóbbu suñuy milliards parce que milliards yi gisuñu ko donc je pense que c'était question à régler mais loolu du vraiment euh, kii buy war a mën a tax ñu naan dañuy reporter élection yi violence euh, dafa amul dafa amul normalement euh, sans si biir élection parce que élection politique débat de la contradiction la da ngay wax pare sa morom wax ñuy déglu kenn lañu ñu mooy peuple bi ñoom ñooy voter peuple bi su ñu lu la satisfaire si yow dinañ la voter su ñu amul lu satisfaire duñu la voter donc violence bi dañ ko wara dindi complètement ci politique amul sens amul njëriñ te gisunu sax en réalité fan lay yóbbu Sénégal ensuite buñu fowé aussi suñu suñu paix buñu foné fowé euh, suñu jamm parce que damay wax lé ñun dañuy citer suñu richesse on parle des richesses halieutiques wax ressources halieutiques yu ñu am wax les ressources minières mais dañuy faté la plus grande richesse c'est la paix parce que am ñu am lolu yépp te jëriñoo wuñ ko parce que amuñu jamm donc pour moi, war nañu éviter les discours yi war éviter les mbir yi nga xamante dañ koy def nga xam mën na suba war nañu travailler à conscientiser les populations pour que ñu votions massivement parce que dama gëm né, le vote dans ce pays là ça change des choses parce que un xol même suñu si ñu ñëpp dañoo contre le troisième mandat de de de Wade mais du suñu xeex motax mu dem vote bi motax mu dem les sénégalais se sont mobilisés pour voter mu dem bi tamit les sénégalais ak lu mu mënti doon élection yi ñu jëm sénégalais yi su ñu bëggee assemblée nationale mu changé assemblée nationale dafay changé la preuve yenn yenn commune yi nga xamante ne ne Benno Bokk Yaakaar def na lu ne pour garder ko mais commune yooyu ba sénégalais yi jugee ne dañ koy jox opposition dañ koy jox opposition donc nañu conscientiser population yi pour ñu dem voter ñu bàyyi wax yoo xamante ne day indi ay fitna ay nit di si dee te loolu je pense que amul benn njëriñ parce que ñu si dee ñoo siy perte te loolu amul sens waaw xam nga xam nga coalition toujours soo ko déggee dafa am ñaar benn bi la c'est avant l'élection avant l'élection, euh, il y' a toujours après l'élection, il y' a aussi une élection parce que toujours l'élection. toujours deux anges. C'est avant et après après non seulement il y a des stratégies qui peuvent être euh, mises en place pour que l'opposition sur la base de la parce que c'est important mais aussi si ñu que pouvoir aussi toujours après élection a stratégie pour puiser dans l'opposition c'est très important que nous xam ñan nous local yi maire de rejoindre le président de la république mais nous ñu rejoindre le président de la république pourtant nous leen di pourtant donc nous attention pour l'après élection Nous ñu xam même sax majorité le président toujours une possibilité à traverser les fonds politiques de guerre ay majorité là il faut qu'on soit très vigilant si nous nationale bien entendu à partir de ce moment toutes les stratégies allant dans le sens d'affaiblir le pouvoir et de faire en sorte que l'opposition mu un changement mais stratégie stratégies jeunesse on a des divergences d'idées parfois on les exprime parce que les exprime avec responsabilité parce que l'on ce mais on n'a jamais euh, de divergences personnelle suñu biir loolu xaju si euh, ku ne mu ngi nekk si yoonam ku ne am na loo gëm ku ne aussi li nga gëm na nga am euh, na nga def tout ba mun ko wane sénégalais yi xam ne ne moom nga gëm c'est tout mais on n'a pas de problème avec lui loolu moom loolu moom amul si amul problème. merci waaw dernier mot bi mooy euh, remercier la di la encourager aussi Pape Matar bu baax a baax si liggéey bi ngay bi ngay def di di woo sénégalais yi rek ñu génn massivement voter pour l'opposition voter pour Aar Sénégal parce que jàpp nañ ne. Euh, Votre bobu rek mo meuna tax changement am ci réew mi amul. wa non Sénégal euh, <clears throat> xam nga on parle <laughs> ça va bien on parle on parle de d'assemblée de rupture en fait ar Sénégal acronyme le mais maintenant a une valeur sémantique parce que ar signifie ngi signifier si euh, protéger mais protéger aussi cest tay euh du ar Sénégal. Sénégal c'est dans sa diversité tey su mun nga wax soo waxee aar Sénégal mun nga si gis nañu aar ndaw ñi nañu art jigéen nañu aar suñu démocratie nañu art suñu état de droit nañu art suñu euh, disons euh, population bi aussi si fi fanaan boo xamante ne valeurs yi la éthique yi la et donc art dafa ëmb lépp moo tax ben benn kilifa dafa ma ne ah yéen moom seen tur moo dàq si tur parce que art moom mooy lépp donc je pense que soxla nañu ku su ne di Sénégal art Sénégal day commencer nga art sa bopp aar sa bopp mooy nga def lo xamantene day mengo ak askan bi lu xaar ci yow loolu moy tax ñeneen ñi mën la imiter loolu moy tax ñeneen ñi mën la japp comme référence donc loolu moy suñu liguey bir art Sénégal donc ñu am mbégte aussi euh, di Sénégalais chaque fois ñuy comprendre lan moy suñu philosophie fa lañ bëgg a yóbbu réew mi surtout fan nan lañ leen bëgg téwolé bir assemblée nationale mu doon un grand plaisir aussi ñu am rencontre bi